ba ca topp mooy di jàng xam yàlla te toppuloo ko di jàng alxuraan te doo jëfee li mu digle bëgg rasulillahi te doo jëfee sunnaam si eh, di lekk xéewali suñu boroom yi te doo ko sant foo toll nekk ci sa sikk su morom te fàtte sa sikk ragal sawara te doo def lu la cay musal bëgg aljana te doo jaamu yàlla eh, musu ci seytaane ci kaw ànd ak moom ci biir foo toll di eh, footalu di di di sol di suuf di suul ku faatu te doo tax te doo waaru kon loolu ci xekk ma ñu la bokkoon bii ci suuf itam muy wax ne àdduna yëngu rek la baaxoo ak akuk dal waaye bu dee yëngu lu yëngu gu rëy rëy eh, na sax lu yëngu rëy rëy da lay wóor cëngi ne dina dina dana ne tekk ba mel ne musta yëngu ba mel ne musta yëngu ci àddina bi ci des mu ne dafay continuer bële rek eh, saa bu saa bu nekkee ci ci ci digg yëngu ga boobee rek delloo leen seen xel ca dal ga bu ko defee du leen yóbbaaleel dara lu ngeen di reccu bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di ñaanal xalifa général dama ni mu yàgg fi te wér di ñaanal suñu sëriñ sëriñ Sidi Abdoul Ahad Mbacké mu yàgg fi te wér ak njabootu sëriñ ab Ahad gépp ñu ngi sant ñëpp ah. taalibi yëpp dañoo ñëwoon tey rek fii ci exposition bi ànd ak euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma ak Alaaji at adjoint maire ak euh, comité bi nga xam ne ñooy commission culture bi te euh, Serigne Abdoul Ahad Abdoul Ahad Abdoul Ahad yi jiite ko muy les tubaab di wax ay Abdoul Ahad yu bare bari lañ ay ex Abdoul Ahad yoo xam ne ñoom lañ tànnoon jox leen liggéey bi ak ñu ànd ak seen collaborateurs yi ak seen mbokki taalib yi ñu def programme bi programme bi nag ni ñu ko defee ren dafa am solo parce que dañoo leen ko jox bi dépuis bi mu tàmbalee ñu bëggoon rek ci bis bu tedd bi bisab ku tedd kii bisab nit ku màgg ku am xam-xam yi nga xam ne géej la woon maanaam dafa jot ñu wan ko gone yi nga xam ne xamaguñu àdduna ak mag ñi nga xam ne fàttali ko mag ñi nga xam ne fekke woon nañ ko ak wan ko ñi nga xam ne seen àdduna ñor na leen te toll nañ ci jàng ko loolu moo tax mooy firndeel exposition bi léegi nag gis ngeen ko nii ngi ñu kóor ku tàmbalee fi Serigne Abdou Lahad tàmbalee ci jamonoom maanaam ba fii ñu te mu ñëw exposition bi ni mu demee ak ay waxam ay discours am ci aaya alxuraan yi waaye ay ay discours am ci xelam jamono rek nit koo xam ne yàlla may na la xel moo xam ne bu sant doon mbàkkiin war naa mën a góor ne Afrique waxuma laa wala adduna waxuma laa am réew la yaakaar naa ne feeñ na ci jataay bi ba ñu tag gis ngeen lim ko tëje juróom benni thème yi nga xam ne moom la ko tëje yaakaar naa ne yooyu boo duggutoon école demoo daara gisoo mag te te jàngat ko képp war nga cee mën a defal sa adduna mm. kon yaakaar naa ne fii bu fekkee ne xale yi nga xam ne dañoo toll ci sàkku xam-xam ak xale yi nga xam ne dañoo toll ci jàngu àdduna yaakaar naa ne bibliothèque ngi nii boo xam ne suñu ko utiliser yaa ragal naa ne suñ borom dana leen mën a dimbale ci lu bare bare bari ndax àdduna kat amut lu ci gën xam boo xamee da xam dana la musal boo xamee xam dana la may boo xamee xam dana la aar kon nag xam lu baax a baax la te xam moom li koy tax a am li koy tax li la koy may mooy sàkku kon nag ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci taxawaay bu rafet bi waaye ci jëf ju am maanaa yi ci ni ngeen ko programme parce que mbir boo koy def li ma da waxoon rek day ñëw da koy jox koo ko xam boo joxee ko xam bu defee lu defee dana def luñ xam bu defee luñ xam ku ñëw te bëgg xam danga xam kon nag loolu moo taxoon sëriñ bi yabal ñu ñu ma ànd ak Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma ak Alane Ndiaye programme ak lenn ci njaboot gi ñëw fekk leen fi ñëw ubbi eh, exposition bi di leen ci sant di leen gërëm di ñaanal ñëpp di ñaan yàlla nañ ko teewee na ngeen déwén di leen ñaan ngeen ñaanal sëriñ bi yàlla guddalu fanante wéral cëram di sant taalibe ak mboolem commité de organisation bi seq programme bi ñu ngi rafet su seen doxin di leen sant di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu muy troisième xalifa général des boo ci génnee nag da ngay yéemu ci li nga xam ne moom la seqoon ak alxuraan ndax léppam di ay jëfam ak ay waxam daa nekkoon loo xam ne day day tekki ay yi nga xamante ne bii mu wàcc ci alxuraan mooy ki nga xam ne moo nekkoon jëmm ji gën a màndargaal dëgg-dëggi jullit dëgg-dëggi taalibe nekkoon nga xam ne léppam dafa dëppoon ak alxuraan ak sunna loolu rek mooy liñ ci jot a ndax dañoo dañoo bett waaye loolu rek mooy foog naa ne li sëñ bi doon wax léegi. fii boo fi boo fi ñëwee eh, foog naa wax nga ko sax ci sa biir eh, leeral. sëñ bi laa mus ta wax waxi boppam. day mel ne rek kuy firi alxuraan waxam jëpp loolu la. day mel ne moom buy wax alxuraan lay firi. loolu moo tax thème bi ngeen jël nii am am solo waaye yëmul ci loolu njàngaleem wolof mi foog naa ne moo gën a dëgërati. foog naa juróom benn xam nga juróom-ñett yi nga wax fii. moo gën a nga xam ne kon. mangoo nga xam ne kon Sèye Lahat ab université la. boo xam ne ba dëgg ni jamono dabu te sëñ Laat mi mooy liggéey université bay fa mu nekk. waaye la fa defoon en 1980. ñeent fukki at ak ñaar góomu ne la ñu fay def ne ëpp na ko doole wala en ci gis-gis. ëpp ko ndax sos gi foog naa ne yëmut ak yëmut ak dara. loolu day wane ne kon moom ba mu ca nekkee. ñu toogaan nañ fanweeri at ak juróom-ñaar soog àgg foofa bi si jéem a tàmbalee ndam la bi eh, kon nag li nga xam ne mooy li am solo mooy liñ li ngeen fi wane nii képp ku di taalibe war cee roy képp ku di taalibe war na fee ñëw ba xool ko ba gis ko ndax njariñu kese la alhamdulilah bi nga xamee ne taskati xibaar yi ñu ngi fi kenn ku nekk fa nga nekk mën na la faa fekk waaye vision boobu mu amoon tam feeñ tey ci université bi maa ngi koy wax léegi ci bëccëg tey jii lépp loo fi gis muy dox ci dëkk bi man nga ne Sëñ Abdou moo ko jëmbatoon te li ëpp doole te heureusement aussi yow jaaraat nga ci mooy ni ma raxase dëkk bi ba ñun ñi fi nekk ñëpp mu génération bii kenn xamu ci lu bon loolu foog naa doy naa sant yàlla ngeen imaginer bu defutoon loolu ak fi réseaux sociaux yi toll ak noonu yoon wi ni ñu bare ci geneen wér gi kon tey ñun lan la ñuy dund ak gàcc kon Sëñ Abdou foog naa ne kenn mënu ko fay yéen itam ñu dañ leen sant di leen gërëm di leen sëñ si di wóoloo ba jox leen lii ngir kóllëre yi nga xam ne seen waajur seqoon na ko ak seen laaj ca dëgg-dëgg mot li ngeen ndax taxawaay bi ngeen taxaw fii foog naa ne eh, kenn na ci ñun bu fi nekkoon mënta def lu raw lii seen laaj mi itam dañ ko sant di ko gërëm. ndax eh, man fukki fan ngi maa ngi ci kër gi waaye li fi def lu ne ak jàpp ndalam loxo mi ngi ci biir di sant itam sëñ Sidi mi nga xam nag moo yaatal eh, xàll yoon mi. may ñu ba kenn ku nekk mën a feeñal sa yéene ndax ñun ñëpp mën nañu am yéene waaye bu tëjoon bunt yi kenn ku ne da nga toog sa kër rek ñaanal seen daal kon dañuy sant di gërëm te ñaan yàlla rek mu yàgg lool ñi ñu àndal du ma jaar ak turi ndax sëñ laa tudd na ko te kàddu gi dafay genn rek waaye daal yàlla yàlla barke liggéey bi sëñ Tuubaa nanga ko dafay leen loo xam ne mooy kaw seen jot ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ñu fekk ko ay at yu bare bare bare bëri di tànd koo jëmm ju tedd yi si biir mu ngi